2 mars 2020, date à laquelle notre pays a enregistré son premier cas de coronavirus, le personnel soignant mène aux côtés de mon collègue Abdoulaye Djoufsar une lutte sans merci pour endiguer la propagation du virus. C'est le lieu de leur renouveler notre hommage mérité pour leur dévotion à la cause noble et leur fidélité à leur vocation et sacerdoce, sauver des vies. La pandémie du Covid-19 menace les fondements de nos systèmes sanitaires, sociaux et économiques. C'est pourquoi, en plus des fortes décisions jusque-là prises pour la contenir et en atténuer les effets, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, soucieux du bien-être des populations et la stabilité socio-économique de notre pays, a mis en place un ambitieux programme de résilience économique et sociale qui agrège l'ensemble des plans sectoriels du gouvernement d'un montant de 1000 milliards de francs CFA. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, dans le siège des actions qu'il a déjà entreprises, avant l'apparition de la maladie sur nos territoires, a élaboré sur instruction du président de la République Macky Sall un plan sectoriel de contingence de 12 milliards 500 millions de francs CFA pour assister, soutenir et protéger les Sénégalais de l'extérieur établis dans les pays touchés par le Covid-19 et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité. Cette diaspora, 15e région de notre pays, si au chef de l'État, constitue un maillon important de la stabilité de notre socle et n'a eu de cesse de prouver son engagement aux côtés de nos autorités pour le développement du pays. Conscient de cette, que cette pandémie ne fait aucune distinction de race, de genre, de statut social ou de religion, j'exprime ma sympathie et mon affection à ces compatriotes qui dans la dignité la rigueur des confinements et la hantise de la contamination. À cette vaillante diaspora, je transmets à nouveau ce message fort du chef de l'État, Macky Sall. Je cite, Le Sénégal ne vous abandonnera pas. Fin de citation. Si notre plan sectoriel de contingence dans son ensemble a été pensé et élaboré en faveur de nos compatriotes à l'étranger, force est de constater que cette cible est diverse et se présente sous plusieurs catégories. Dès lors, l'atteinte des objectifs ainsi déclinés nécessite une cartographie de la cible, une définition des critères d'attribution et la mise, mise en place d'un mécanisme de mise en œuvre. Par cible prioritaire, nous avons retenu les Sénégalais de l'extérieur en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, Sénégalais en situation de vulnérabilité en, ou en cours de régularisation de séjour, sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos vaillants retraités des foyers qui sont aujourd'hui très exposés. Les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autres que leur de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l'aide de crise ou de l'assistance sociale du pays d'accueil, les familles des malades et ou des victimes du Covid-19. Assurément. toutes ces catégories précitées, nous ne, de toutes ces catégories précitées, nous ne saurions écarter les familles de nos compatriotes vivant au Sénégal. Nombre d'entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l'heure actuelle les répercussions de la baisse d'activité économique de leurs parents expatriés en raison de la baisse du volume des transferts. Quant au mécanisme de mise en œuvre, placé sous la coordination de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et des de l'extérieur, que préside le secrétaire d'État Moïse Sarr, que je félicite, parce que nous, nous avons eu au ministère une cellule de crise depuis l'apparition avant que, la, avant que cette pandémie n'arrive au, Sénégal, c'est avec nos étudiants qui étaient à Ouane et qui sont sains et saufs. Cette cellule donc vise à assurer la gestion efficace efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan de contingence national de lutte contre la pandémie du Covid-19 au profit, au bénéfice des Sénégalais de l'extérieur. Les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds la cohérence des interventions, la transparence, l'équité et la célérité. Ainsi, au niveau de chaque juridiction, sans préjudice des exigences de célérité et de transparence liées à la nécessité d'assister en urgence nos compatriotes, il sera mis en place un comité de gestion de l'assistance et des aides sociales destiné à atténuer les effets du Covid-19 sur les Sénégalais de l'extérieur et renforcer résilience. Ce comité, placé sous la présidence de l'ambassadeur, est composé du consul général ou du consul, du responsable des affaires consulaires ou sociales, de l'agent comptable, d'un député de la diaspora, de toute autre personne ressource, membre d'une association ou pas, désignée par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission. Une plateforme interactive d'échange et d'enrôlement et en cours de finalisation. et fera office de moyen important de communication avec notre réseau diplomatique et nos compatriotes. Elle intégrera un formulaire d'identification et de recensement de nos compatriotes susceptibles d'être assistés. L'action du ministère s'appréciera en deux temps forts. Une phase d'urgence que mes services sont en train de mettre en œuvre depuis hier et une autre plus conséquente, dite de résilience, qui impose une nécessaire prise en charge dans le court, moyen, voire le long terme. Mesdames et messieurs, depuis la crise sanitaire, que la crise sanitaire s'est exacerbée dans certains pays, des compatriotes ont malheureusement succombé à la pandémie. Je voudrais m'incliner devant leur mémoire et présenter, au nom du chef de l'État, son Excellence Michel Macky Sall, du gouvernement, et de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur, ainsi qu'à mon nom propre, nos sincères condoléances. Pareille occasion me permet d'appeler l'attention sur la nécessité d'un respect scrupuleux des directives sanitaires émises par les autorités des pays d'accueil, renforcées par celles de l'Organisation mondiale de la santé, sans oublier les recommandations du Comité national de lutte contre les épidémies au Sénégal. C'est pourquoi instruction a été donnée à toutes nos missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher sans délai des autorités administratives et municipales, des villes, de résidences, pour disposer à chaque fois que de besoin, pendant cette période exceptionnelle et que nous espérons bientôt derrière nous, une sépiculture dans les cimetières musulmans ou catholiques pour nos fidèles défunts du coronavirus. C'est cette période, cette période de guerre contre un ennemi invisible, nuisible et insaisissable commande une fois de plus une union sacrée autour du chef de l'État, une mobilisation de toutes les énergies, une vigilance accrue et un respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires pour vaincre cette maladie. Ensemble et avec le soutien de tous, nous réussirons. Je vous remercie de votre très aimable attention. mbokk yi ginnaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam ñuy sant yàlla bu baax biñ fi teewaatee tey di ndokkeel sunu collègue Ablaye Diouf Sarr ak ñi mu àndal ñëpp ci xeex bi nga xam ni àdduna bi yëpp dañ ci dañ ko dañoo jànkonteel ak moom te yàlla dogal feebar bi dugg Sénégal depuis le 2 mars 2020 li leen yitteel tey mooy aar Sénégal ci wàllu faj li leen yitteel tey mooy fexe bokk feebar bi dal ñu mën la faj ñu ngi leen di félicité mook équipe bi mu àndal di rafetlu résultat yi nga xam ne am nañ ko adduna bi yépp di ko rafetloo politique bi nga xam ne ak mesure yi nga xam ni président Macky Sall jël na ko ba tax sa ne tey Sénégal ci réew yi nga xam ni li ñuy def pour xeex feebar bi Sénégal doon na réew boo xam ni amante na ci ndam bi feebar bi duggee Sénégal président xam ni feebar bi ginnaaw nit ñi mu mën a lor dina yàq lu bari ci koom-koom bi mën na sax yàq lu bari ci réew mi loolu moo tax mu defoon benn plan. boo xam ni plan bu ñuy wooye plan d'urgence la def ci plan boobu junni milliards junni milliards yooyu la mu war a faj bari na junni milliards yooyu war nañ cee jàppale santé junni milliards yooyu dinañ ci jàppale koom-koom bi ndax waxtu wi ñu toll koom bi dina soox lool junni milliards yooyu dinañ ci jàppale loolu la président bëgg ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu ñu gën leen di woowee ci ay ménages vulnérables loolu moo tax yeneen ministères yi ku ci nekk yaa ngi doxal politique bi nga xam ni président définir na ko ci fànn boobu président jàpp ni sunu mbokk compatriotes yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te ñu tuddee leen quinzième région ñu am nag solo lool ci koom-koomu réew mi ndax at yi wees boo jëlee réew mi alal ji mu am yépp daanaka téeméer boo jël fukk yi mi ngi doon jógee bitim réew kon ña nga xam ne dañoo nekk bitim réew am nañu solo lool ci koom-koomu Sénégal moo tax président jëloon ndigal jëloon dogal jox ndigal ministère des affaires étrangères génne ci alal jooju fukki milliards ak euh, genn wàll pour ñu dimbali ñooñu xam nañ ni loolu ñëpp mënuñu cee jot ndax am na ñoo xam ni. dëgg-dëgg du leen ci mën a boole mooy képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ni réew mi nga nekk mu ngi lay jàppale képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ne la nga dese wala la nga yor ci alal mayu la nga jot ci lii doo ci jot ñi ñi nga xam ni président bëgg na ñu jot ci mooy étudiants yi nga xam ni amuñu bourse te doon def ay liggéey yu sew yoo xam ne mënatuñ ko ñi nga xam ni ñi ngi bitim réew nekk ci situation de vulnérabilité moo xam am nañu këyit wala amuñu këyit doon nekk ay commerçant yoo xam ni surtout vendeur à la sauvette nekkoon ci ci ci ci ci ci dëkk yi rawatina dëkk yu mag yi ñooñu nga xam ne tey mënuñoo génn mënuñoo dem fenn mënatuñuy dimbali seen njaboot gi ñu bàyyi Sénégal ñooñu la président jàpp ne war nañ leen dimbali fi ñu nekk ginnaaw bi nga xam ni. li nga koy xam ne ñu ngi koy def ci biir réew mi di dimbali famille yi néew doole incha allah ñooñu kenn du leen fàtte bi xeex feebar bi nag duggee ci af bi ministère des affaires étrangères amoon na benn comité de crise ndax doomu Sénégal dañoo nekk ci àdduna bi yépp feebar bi fi mu jógee ci Chine amoon nañ fa fukki étudiants ak ñett ñu amoon benn comité de crise boo xam ni secrétaire d'État en charge du Sénégal de l'extérieur moo ko présidé woon di wax ak étudiants yi di wax ak parents wu étudiants yi ñu dimbali leen mesures yi nga xam ni jëloon nañ ko tey jii ñëpp war nañu rafetlu ni ko mesures yooyu bokk na ci li sauver Sénégal ndax réew yi nga xam ni doxawaloon nañu neneen gis nañu tey réew yooyu ci coono bi ñu nekk kon la ñu mën a wax ci loolu mooy gàcce ngaalaama président Macky Sall ci esprit bi nga xam ni amoon na ko donte yëf yi metti woon na lool mu jàpp war nañu dimbali foofu sénégalais yi dénk leen gouvernement chinois ñu jàppale leen ba kenn feebaru ci kenn loruwu ci comité boobu la ñu mi ngi dox ba tey ñu dénk ko kon Moïse Sarr mu ciy liggéey ak cadre yi nekk ci ministère bi ak yenn responsable ministère bi ma mën ci citer sama directeur de cabinet mën ci citer secrétaire général mën ci citer directeur général de Sénégalais de l'extérieur ak yeneen responsable yi fa nekk comité boobu lañ ko laaj mooy na gaaw lañ ko laaj mooy nañu ko jëmmale nañu defar mbir mi ci procédure yu gën a jub te nañ ko déconcentré décentraliser ko moo tax alal ji du des Sénégal incha allah ci fan yu néew Moïse dina fi ñëw wax leen réew mu nekk la fay dugg wax leen nit catégorie bu nekk mooy ñi ma lim léegi catégorie bu nekk ñaata lañ lay jox ñaata lañu ñu war a jox étudiants yi ñaata la ñu war a dimbale ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur informel te tey jii mënatuñu liggéey ñaata la ñuy dimbale ñi feebar ñaata la ñuy dimbale njabootu ñi nga xam ni dañoo feebar te liggéeyatuñu loolu yëpp incha allah dina fi ñëwaat ci fan yu néew wax ci ak communauté bi. ndax li ñu président sant mooy na yëf yi nañ ko doxal ci transparence na gaaw surtout mais aussi na ànd ak transparent région bu nekk lu ñu woowee juridiction ci ñun mooy réew wala groupe bu réew bi nga xam ne am nañ fa ambassadeur ambassadeur bi ci boppam mooy présider commission bi mais ci biir ambassade boo mënti gis nag am na ñoo xamante ni ñoom ñooy toppatoo les affaires consulaires muy consul généraux yi wala consul wala bu nekkee amuñu ko ci dëkk ba ambassade ba am na koo xam ni mi ngi ci mooy yor responsabilité des affaires consulaires ñooñu ñëpp dañuy bokk ci commission bi. leneen li nga xam ni danañ ko def mooy agent comptable bi mooy ñi nga xam ne ñoo day denc xaalis bi ñooñu aussi dinañ bokk ci commission bi député de la diaspora dinañ leen boole ci commission bi ak képp koo xam ni jàpp nañ ni sa teewaay ci commission bi dina jariñ askan bi jox nañu ndigal comité bi na lépp. pour mu leer lépp pour mu gaaw incha allah am na loo xam ne commencé nañ ko def depuis démb loolu nag mesure de soutien d'urgence la boo xam ni def nañ ko depuis démb ñu ngi exécuté benn dépense boo xam ne toll na ci un milliard yaakaar nañ ni tey wala gën baa tardé fii ak fin de semaine ambassade yi ak consulat yi dinañ ko jot séddale na nañ leen ko loolu yëpp incha allah Moïse dina ñëw wax nañ ko fi defee yàlla nag dafa dogal. feebar bi am ay doomu Sénégal yu mu dal bitim réew am ci ñoo xam ni dañ ci wàññeeku ñuy jaale ci turu président Macky Sall ñooñu ñëpp seen i njaboot di leen jottali aussi njaalu gouvernement bi ak njaalu ministère des affaires étranger amoon nañu nag aada koo xam ni danga nga wàññeekoo bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da lay dimbali moo xam ministère bi da lay dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci min OMS waxtaan yi nga xam ni am nañ ko ak autorité yi nga xam ni ñoom ñoo yor réew yooyu ak conseil yi nga xam ni sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo ci wàllu santé wax nañ ko fi mu nekk nii ñooñu mënuñu leen indi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instructions pour que suñu ambassades yi ak sunu consulats yi ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppook yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñun wax nañu suñu consulats yi dëkk yi nga xam ni dafa jar. ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee alal ji njëkk yóbbante daanaka loolu lay jariñ maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu. dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññee mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàppee ni danga war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñooñu mën a ñibbisi ñuy dool dellu di jaale mbokk ñooñu di mettitlu di naqarlu la nga xam ni dal na leen ndax ku sañoon bu sa mbokk wàññee nga defal ko la nga xam ni moom la la mujjee ñaan balaa muy génn àdduna wala nga defal ko yow li nga xam ni moom moo gën a dal sa xel mooy indi ko ci réew mi ndax nga mën fa dem di ko ziyaare waaye di ni àdduna bi bindoo tey ak danger yi nga xam ni am nañ ko risques yi nga xam ni am na ci àdduna bi ñu dem ba àdduna bi dem beeg dikk bi dañ ko taxawal ñu dem ba ci àdduna bi boo amee sa doom mbaa nga am sa way jur mu nekk ci bitim réew mënoo ci moom dara mënoo ko jëli mënoo ko fekki donte da nga ko mën bu àdduna demee ba tollu foofu nañu nangu ni la àdduna bi laaj ndax réew mi yëpp mën a mucc loolu rek la gouvernement bi mën a def ci loolu la gouvernement bi taxaw moo tax ñuy ñaan sunu mbokk yooyu donte xam nañ ni metti na parce que ñaari naqar la mooy naqaru am ko wàññeeku ak naqaru la nga bëgg mënoo ko def nañu xam ne gouvernement bi mi ngi seen wet lépp luy ndimbal ñu mën ko dinañ ko def ci autorité diplomatique yooyu pour ñu mën leen denc denc bi gën a rafet am na ay cas yoo xam ne réussir nañ ko ci déjà Espagne ñuy dellu di jaale mbokk mi nga xam ni noppaloo na Espagne denc nañ ko fa ndax jullit la woon ci cimetière ci carré jullit yi fa nekk imaam taxawu na ko ba euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ñu ñaan yàlla aussi ñi nga xam ne wàññeeku nañu ci yeneen réew yi nañ ñu dimbali topp ci loolu ndax loolu mooy la nga xam ne dina leen jariñ ñoom fi ñu nekk ndax loolu mooy liy jariñ réew mi ndax réew mi tey li ñuy def yëpp mooy xeex ba préserver réew mi te réewu àdduna yëpp ci loolu la ñu mànko ma leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen masawu salaamaaleykum wa rahmatullah